mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi am mbekté ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si Seydina taala alayhi wa sallam cheikhul khadim cheikh Ahmad Bamba ñu nek nek fi ci euh, Rosso Mauritanie euh, génné Rosso Sénégal ngir rek euh, dem ci fi nga xamné ne moo di Sarsara ziar bi nga xamné ngi koy Ahmad Bamba ak mbollem daayira ak kurel yi nga xamné dafa soxo soso ci yoonu euh ngir rek dundal liggéey bu sel bu mag bobu nga xamne serigne bu tedd bi cheikhul khadim cheikh Ahmad Bamba amal nako ci point net timis bi ñu fas rek ànd kon ngir euh, man leen topal liggéey bobu fego ak ñi nga xamne euh, moy soxna aida soxna aida Dem bi nga xamne mom euh, daaira bi nga xamne jité nako na di daaira daaira soxna jaara bu Masalik kon ñu koy top rek adala ya allah سري طيب بقاء بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي رن منك يا الله أي ملاسي أجو برامتي على أولا يدر أن منك يا الله مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدس سري يا قدوس متليم أني وأنت karaadi tudaara yàllaaw ñu ngi ak yéen fii ci euh, Nouakchott république islamique bu Mauritanie cinquième arrondissement. ci kër Serigne Sidi Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Moutala Mbacke ibnu Xaadim Rasul ci délégation bi nga xam ne jóge nañu Touba euh, Louga ak Ndakaaru ñoom ñëpp rek ñëw ngir topp jeexitalu ku tedd gi Seexul Xaadim si Ahmad Bamba. ci mbooloo mi nga xam ne nag soxna Ayda Dem jiite na ko ñu nekk kon seen kanam ki nga xam ne moom la dénk kàddoom. mu yore wàllu kàddoom war koo yëkkati bi ñu agsee ci nga xam ne une heure du jot na fi ñu toll nii ñu jub sal fi nga xam ne mooy kër sëñ di def ay ziar ndax moo fi nekk ci turu maanaam kilifaak yoonu murit ci turu xalif général de murit maanaam njabootuk seexul xadim si Ahmad Bamba kon bu ñu wàccee jubal këram ñëw def ay ziar sàkku ay ñaan euh, tamit ne mu ngi ci daayira Maam Jaara bu daayira bu jumaa Masalikul Jinaan Euh, nga ñëwal ñu rek ci li nga xam ne moo di euh, li nga xam ne moo ñu andi fii ñun ñëpp waa salaamaaleykum mbokk jullit yi salaamaaleykum mbokk taalibe man maa ngi tudd soxna madame Diouf maam Bamba bu Masaliku Jinaan ànd ak nag tubaarkàlla délégation Adja Aida Dem bi fi jógee nag Sénégal ñëw nag fii ci gànnaar di sant sëñ Sidi Mbàkke di ko ñaanal yàgg fi lool te ànd ak wér ndax di wax jërëjëf Serigne Touba rek di di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanal suñu jëwriñ nag alaaji Mbacké yu fay di ko ñaanal suñu jëwriñ Adja Gammu Diop di ko ñaanal suñu jëwriñ Adja Aïda Dem mii ñu àndal ba ñu àndee indi na fi juróomi biis ba ñu àndee moom soo ba léegi dara manqué wul Masaalikul Jinaan nag lañ déparé ànd ak nag taalibe suñu mbokk taalibe yaa ngi nii nag dara manqué wul. bi yàlla yonent bi ak sëñ ñi sant Serigne di Mbacké ibnu San Murtala, mi nga xamne ne nu jox liggéey bi nga xamne ne moo nu ko jox ki moy Cheikh Mbacké mbay di bëkk nek ci sëñ bi di trésorier fédération Cheikhul Khadim bi man nat ma leen jël ci di premier vice président bi mais dama ñew fekk sama jëwriñ dafa melni dafa génn lek mom mo waron taxaw mo waron wax mais comme que ko j'étais obligé ma wax ko sant yalla bax wajal nañ ko ni wajale. ko daan Eh, yaakaar na ne tey sax ren sax lañ ko gën a waajal parce que sëñ Fallou si boppam mooy li nga xam ne moom dafay yaatu lu toll ne sëñ Fallou moom du ko ubbee moom dafay dafa dafa ëpp sax nañ ko daan waajale yaakaar naa ne ren moom dana taw feex bu baax dafa mel ne dan li naan dafa dafa ala daw me lan koy waxee moom dana daw me moom ren tubaar fakal doon ci yoon wi rek nu mu demee rek ngeen xam ne tubaar fakal la incha allah lépp dana baax. am par rapport am na lu bees lu bees moom day bari trop trop trop parce que yaakaar naa ne lu bees dana bari. parce que euh, am na yu bees daal yi nga xam ne mi ngi fi moo nag mais nag ñi nga xam ne ñoo war a présenté yu bees yi dañ fee nekkul parce que man maa leen jëli woon moo tax bon comme Cheikh Mbacke Mbaye mi ngi fi ku naan sëñ Cheikh Diop ma nga ne si yoon wi di ñëw waaw. Ah, ñoom naan sëñ Fallou Mbacke jir ko ak soxna ay dem si soxna yi ñii ñëpp ci mbooloo mi lañ soxna ay daa ngi nii. alhamdulilah Mbaye.

ak xeñtu ku baax ci barab bo xamné ne moko baxal ko nak yeen li ngeen def jarnako na bi mom xeñtu ko jarna lepp te seen jéego yi yalla nako sun borom nangu te fay len ci yiwu kawé sen njott sant nan bu baax a baax jasaakumullaahu xayran yaa ngeen jëf yaa ngeen jëf leen bismillahi fiinin ak daala yàllaw safi baqa abin bi fiinka yàllaw يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيب ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوسي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري راسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر من منك